trop loolu li ma la ciy confirmer tuuti sax. Ah. Euh, yaakaar naa am na ñoo xam ne ñi ngi may dégg deewuñu ñi ngi fi. ndeysaan euh, man def naa lu lu lu raar si si si mbër. muy lan euh, jël oto ñaari super ñuy laaj pour ñu fay ma ne ko bu ñu eggee ma jël tournoi bi fay la te dama ko jël fay ko. loolu fan la amee woon. mbopat def naa ko Lamsaar def naa ko Tëngéej def naa ko Sendou. da ngeen di jël oto. oto amuñu lu ñu fayee ma ne ko ma ne chauffeur yi. est di ngeen d'accord bu ñu demee tournoi bi ba pare ma fay leen. ñu ni hmm. waaw ma ne leen jara ñu ñu dem ma jël tournoi bi fay ko. avant may dem xam nga loolu loolu loolu boo mënul bëre doo ko def. boo amul gëm-gëm. doo amul gëm-gëm doo loolu non ak mën bëre sax. ak mën bëre parce que man def naa mbapat euh, trois ans yoo xamante ne nii. benn yoon laa ci daanu daal yaakaar naa ci mbapat. benn yoon si mbapat. benn yoon te samedi ak dimanche damay bëri ji. fekk samedi dimanche nga bëri samedi bi mu bëri arène moom bi mu bëri arène mi ngi mbapat. waaw bi mu bëri arène maa ngi mbapat aussi tamit. mbapat boobu ku la si yàlla si. Euh, yàlla na ko yàlla xare àjjana Moussa Dioum. Moussa Dioum. oui ah bëri ngeen mbapat mu daan bëri nañ mbapat mu daan ma waaye. Hmm. Moussa Dioum daanaan la woon moom it. waaw daanaan ak ñan nga bëreel mbapat. sak sak ñan nga tàmbaloo bëri na ay euh, kii euh, Paate Balde. Paate mii. Paate daje nañ ay Mbapat Gunaas. ay Seex euh, Kan. Seex Kan day saa xam nga ay Isaa Puy bi. Isaa Puy Lamsaar laa ko njëkk a daane Mbapat. Isaa Puy bi. Isaa benn way. la kaymaa de caay. ay ñoom Baye Ma Ndione Baye Ma Ndione ma ñeme man Mbapat. parce que musuñu bëre ma ak moom. Mhm. Euh, mus naa ko dégg sax mu ni daf ma daan mbapat mais musuñu bëre. musul leen bëre parce que bàyyi ma joon heure bu ma mosaan ñëw seen koñ du bëre ak man. Mhm. mun na indi bruit foofu ak coow ba affaire yi yàqu noonu quoi. dëgg la mais musuñu bëree ba sëñ Fallou. musul leen bëree musuñu bëree mbapat. kon daal yow mbapat da ko toj. aren lañ bëree waaw mbapat moom <laughs> mbapat moom mooy loolu moom. waaw mhm. mbapat moom far kan moo la jàngal bëree. xanaa jékki-jékki woo rek judd rek bëree. am na ku la ko jàngal. non mais mais mais mais mais mais xam nga yàlla nax si mu tarifoo na la wax. Mhm. bind naa doomu aadama yi mais yamuñu. et dafa am nit yoo xamante nii yàlla moo leen ni sans mhm. yàlla moo leen téel boppam. dëgg la même yow boo leen attaqué sax mun na am leneen lu lay arrivé sax nga ne non kii daa am fekk loolu. daa ñoo mhm. xam yàlla moo leen téel boppam. dëgg mais li tax moo wax loolu euh, làmb làmb euh, Fass laa ko laa ko jàngee. écurie Fass mais mais dem naa ba benn jour Père Mbaye Gueye yàlla na ko yàlla yërëm ma bëre Tafa Gueye benn entrainement mu jékki-jékki ni ma bëre kenn dootu la ci jàngal dara. bëre Mbaye Gueye ne wax ma loolu mi ngi si suuf xam nga sañu ma ko fenal. déedéet mu ne ma bëre kenn dootu la ci jàngal dara. mais Fass euh, am na lu ma fa mën mais am na loo xam nag don la. Mm-hmm. am na loo xam don yàlla moo koy def si nit. waaw parce que man am dem naa ba xam ni lii nekkul fii laa ko jàngee quoi. Mm-hmm. Euh, Iba même ba ci Lasper sax Lasper. Mhm. dama si amoon doom bépp foofu bu ma dugg dama si amoon doom. kon nga doon picc yi. Mm. non damay yor set bal ni booy set picc. xam nga loolu loolu yombul. yombul waaw set bal set picc. Mhm. laay jam bal bu nekk ak piccam. Mhm. xam nga loolu te def ko ci kii loolu loolu. ak yeneen yëfu booy yoo xamante ne nii. xam nga am du yëpp lañ mën a wax fii sax quoi. parce que am enfance yow da am enfance. waaw Tafa Gueye 2 Tafa Gueye 2 Ousmane Mbaye hmm. euh, ñoo nekkoon doo woon suñu moomu mag tuuti rek. mais ñoo yoroon doo woon Fass Fass hmm. Mbaaw. Hmm. yoroon ay ay dawkat. waaw xam nga daan tugg si ñaay bi. dawkat c'est mooy xaj quoi. Ah. xam nga daan tugg si ñaay bi di rëbbeeg affaire yooyu noonu. xam nga. moom ci foofu lañ njëkk a xamante avant avant avant làmb. mais yooyu aussi tamit déggoo ma ne du yëpp la ñuy sax kii. mais yooyu loolu moo la forcé loolu moo la defar. waaw ba pare yooyu dafa am ay ay dons yu ñu ci amoon aussi tamit. Uh-huh. cest à man amul ba ci métier bi ma nekkoon dama si am don. ban métier nga doon def. menuiserie. menuiserie man machine yi yëpp di dawal machine yi def bois yëpp yëpp laa mën. Hmm. yëpp laa mën yëpp. dëgg la yëpp parce amuñu woon machiniste quoi ñun ñun ñoo doon defaral suñu bopp machiniste. Mm. defar euh, ibiniste bi ak yooyu noonu. Mm. fa laa daan jóge nag di dem Fass. Mm. kan moo la andi Fass euh, Fass sam benn xarit bu ñuy wax moori Pen. Mori Pen Mori woy daf la gis si mbapat après dugal la écrit waa waaw boobu sax bëree gu ma mbapat. dafa ma gis comme ma nekk ci atelier bi di bëree noonu ak gars yi rek. Ah. xam nga mu ne ma est-ce que du ma la yóbbu faas ma ne ko est-ce que boobu maman boobu sax maa ngi nekk booy. waaw ko Fass ñoom Tafa Gueye mu ne ma waaw. mais premier jour bi ma yóbboo bañ fekk fa Tafa. Hmm. affaire bi daf ma kii daal ci su bëgg sax maa demal sama bopp pour bëgg a gisaate Tafa. Tafa parce que moment boobu daaw ma ko dama ko daan. kii nii si télé bi rek. Ah. way mais après xam nga bi ma ñëwee noonu Fass. waxal micro moom moo ma indi Fass. Hmm. mais dem naa ba Tafa ñu bokk benn kër bu ñuy fanaan man ak moom Sacré-Cœur këram. ndeysaan parce que instant boobu am na leneen lu lu lu lu nekk si man daal. Mhm. loo xamante ni xam nga ñëw na. Mhm. parce que commencement bi maa ngi bëree ci catégorie bu ndaw bi dem ba si deuxième catégorie bi. Mhm. mais dernière catégorie bi vendredi du ma ko fàtte laa fa yóbbu sama bopp. yaa fa yóbbu sa bopp. maa yóbbu sama bopp ci ñoom Zallo ñoom Rock Mbalax ñabali ñoom Tafa yooyu te boobu boobu maa ngi nekk booy nii. te ay ndaanaan rek nga fi lim. waaw ñooñu ñooñu dañ ñooñu ñooñu mooy loolu. ñooñu bëri nga ñooñu bëri nga ak moom bëri nga ak Diallo Mbabat. non non si entraînement ci entraînement quoi si entraînement Fass boobu moment boobu ñu ngi nekk Sakura Badiane. boobu ah. après Lambu Joola. Mm-hmm. mais boobu ñu ngi ñu ngi comme da nga dafa am ñetti catégorie la. Mm-hmm. dafa am fii après bii après doog a dem ci kaw. Ah. mais jour bi may dem ci kaw Ousa amoo ma romb rek ma daw laxasu ko. xam nga fekk boobu contact nañ ba pare quoi. Uh-huh. ma laxasu ko ñu bëree ma ak moom bëree bu rëy. Uh-huh. xam nga ci benn kii bu nekkoon foofu noonu après voilà ko tuur. nga tuur Ouza Sow la rasamaan waaw romb ma te rog yaakaar naa ku lu man rog sax lu bëri moo ko def ci man. ndeysaan. Euh, ma bëreeg rog noonu. Uh-huh. xam nga ñu bëree bëri bu garaaw man ak moom ba mu am ay lang avion ak yooyu. xam nga après si lay bàyyi ci suba. bëri lang avion waaw. waaw mooy des fois rok xam nga daa mën a bëree. jàpp sa tànk nga ci nii nga teg benn tànk bi ci dënn bi dem. xam nga <laughs> yooyu noonu. loolu moom yóbbu sax si punkal yi. parce que dama xëy si su suba gi rek bàyyi ne ma demal fële. Ah. parce que instant boobu ñu ngi doon seetaan ñaari combat yooyu. quoi ah. ñu ne ma demal fee ne. demal fee fa laa jaaree jaaraatuma fële ba tey. nga dugg nga fekk fa kan. fekk fa ay. Zallo Zallo. ñabali xayloo ñoom ñabali carrément. ñoom uh-huh. euh, Ouza ak Gris. Gris Bordeaux. Gris way ak ñoom. jili boobu jili mi ngi foofu tamit saf uh-huh. saf. ay la la maane la maane dinaa ko invité koy nuyu aussi. la maane semaine passée. Uh-huh. moom aussi tamit mais moment bi may nekk foofu la maane nekkul nekkul foofu. aussi nekkul ci kii boobu quoi. mais. ponkal yi daal laa fa fekkoon. xam naa mbéy ngay si waaw bëree bi gën a yokk foofu aussi tamit. Ah. bëree bi gën a yokk parce que rog laa xawoon sonal tuuti quoi ne ko des fois mu am kele bu ma daanee nag. ma ne ah. ko mais grand bii noo ma def ba daan ma nii. Mhm. mu ne ma nii ma ne ko mais léegi su ma nit defee noonu ma war a bañ a daanu nu may def. man noonu laa jàngee bëri nag. donc ah. dafa demoon ba parfois daf may jépp yi parce que danaan booy da ah, mën a laaj. ma ne ko non da nga ne suñ jàppee fii weñ ma damaa war a tëdd. Ah. mais nan laay suñ ma fa jàppee pour ma bañ a tëdd nan laay def. nan ngay def mu ni ma nii ngay contre bi nii la. xam nga moom it bokk na ci lu gën a yokk xam-xam ci man quoi. mais après falaa nekk continuer di contact foofu. contact foofu même pas un rek laa fa def commencé bëri arène. commencé nga lu xeexu am sa waaw parce que moment boobu noonu xam nga. Mhm. par force boo bëree parce que ñoom dem nañ ba mënatuñ ma daan nag. buga ci ba ci tafaasun film bi ñu joué sax. ak Tyson ak yooyu l'appel des arènes. daf ma teel a xamal carrément waroo maa maa war a daanu quoi man. Hmm. <laughs> xam nga. Mhm. waaw di ma fi ci biir film bi ci film bi mu ne ma mooy acteur bi moom mu ne ma. <laughs> mooy man maa war a daanu quoi. <laughs> waaw man maanaam bu ma ko daan daal. waaw bu ma ko daan waaw. xam nga. <laughs> Ah, moment technique bi lan moo ko waral te jékki-jékki rek gisatuñ la déggatuñ la lan la dañ la raaral lu xew exactement. non man kenn raaralu ma sax xam nga làmb parfois day am loo xamante nii yaa koy dund yow yow kese yaa koy xam. Hmm. ak euh, quelques ñi la ñi la jege. Mm-hmm. te làmb ñetti étape la. Euh, làmb day dem di neex ba mu yàgg mu coupé demaat neex wala soit mu tàmbali neex dem ba mu yàgg mu coupé ah, continué waat neex. Mm-hmm. ñetti étape yooyu la. mais euh, man li ma xaw a kii dama dem ba benn situation boo xamante nii suñu kër damay jël des fois sax ma jëli combat pour ak. pour pour pour pour kër gi daal am situation yi doy waar yu fa nekk. mënuma expliquer lépp quoi. Hmm. Mm, il faut ma jël combat ba si dem si yàlla sëñ Modou. Euh, des fois daanaa ko woo am lu ma ko expliquer pour pour mu pour pour pour sax ma bëre. Mhm. xam nga mais comme tey promoteur yi tamit parfois day am benn comme ni ko Boucar waxee rek. Mhm. des day am chantage. Hmm. xam nga mais moment boobu loolu bokk na li ma téye ci li ma xawoon a kii ci làmb quoi tombeeg mm-hmm. sama yaay gaañu instant boobu xam nga mu xaw a metti daal mu metti torop ma am yu garaaw daal euh, dinaa wax tuuti rek man am naa combat war a bëre dimanche samedi ci guddi ma ñaari paquetu biscuit euh. xam nga loolu loolu ak bëre du lépp lañu mun a expliquer loolu man def naa ko nga war a bëre ji réere ñaari paquet biscuit. biscuit yu fukki dërëm ma ne sama rakk bi ni ko booy xam naa ku njëkk ñëw sax ci suba gi jëndal ma ndekki que ci suba gi laa war a bëre. Hmm. loolu rek laay cof tuuti quoi mais du lépp laa mun a expliquer nag. kon yow sa jam <laughs> da nga am ay difficultés yu doy waar. waaw yu doy waar. yu tar yu tar. man sama benn tante toog na ni ma pour ma jox ko sama pour ma jox ko samay kayit parce que daf ma war a yóbbu Italie ma ne ko non mère man dinaa tukki parce que boobu xam naa ni làmb ji nii bu dee bëree kese moom ci kàttanu yàlla dinaa ci sori moom. xam nga mais ba léegi sax moom ci loolu la ma meree. mais boobu man li ma li nekk si man xam naa ko ak xam nga mais moment boobu ba max tuuti rek euh, damay dem sama. ak. et puis Fass euh, benn côté dama leen di condamné tuuti. Fass waaw xam nga xam nga Ibo mënoo wax euh, numéro di tagg di tagg numéro 2 bàyyi P. xam nga li ma la waxee sax. Mm-hmm. di tagg numéro 2 te doo wax P bi. Mm-hmm. man dañu doon tegal tournoi ak ñooñu ñëpp fas ñi ngi mi ngi nii soriwul ñi ngi may dégg. Mm-hmm. dañ doon tegal tournoi ak ñooñu ñëpp ñu ma la wax boy Rock Mbalax ak Giré tout ñëpp. te man dama koy jël ci biir écrit bi. am na benn jour sama papa euh, yàlla na ko yàlla yërëm moo moo mm-hmm. moo ni ma bul jëlati foofu dara buñ ko fa tegee mais mm-hmm. boobu booy laa li muy wax xawuma ko mm-hmm. mais moo ni ma buñ fa tegatee dara bu ko jël soo demee sax munta ñàkk ba kii nga daanu mais la ma doon wax boobu après laa koy doog a comprendre xam nga da nga jàpp ne écrit li ñu la doon tagg tagg yëpp jàppale wuñ la non jàppale jàppale amul foofu te Mbaye Guèye gëmoon la Tafa gëmoon la. trop Tafa bu amee combat balaa muy première mbër bi ñuy njëkk a lim pour dem këram man la première. pour regroupement. pour regroupement première Mamar hmm. Ndiaye président bi sax premièrement bu ñuy réunion Tafa mu wax loolu ci làmmiñam moo ne ma bu ñuy wax sax euh, pour ñuy ñëw kër gi Mamar mooy njëkk wax eh Babacar Diallo bu Fass ñu doog si teg keneen. Hmm. ñooy nekk dem boxu dem fajar géej dem contact tout hmm. lépp. xam nga ba si euh, Tafa bu amee combat man su ma su ma su ma su ma ñëwee bu mu bu ñu nekkee maak moom sax yaakaar na xel mi day gën a dal donte mooy mooy sunu grand aussi. Mm-hmm. mën na bëre aussi torop nag. mais euh, euh, nit di ko jàngal sax léeg mu dem ba dàq la loolu. Mm-hmm. xam nga mais. Tafa nga ba dàq bëre Tafa. ah Tafa Tafa waa ndaanaan la mais mu xam naa ne nag. xamante Tafa maa ko dàq maa ko maa ko dàq bëree Tafa. yaa dàq bëre Tafa Gueye. barki yàlla moom soo ko toogee soo ko laajee dina la ko wax mais ku mën a bëre la nag. waaw mais yaa ko dàq bëre. ah Tafa billaay wallaay maa ko dàq bëre barki El Hadj Fallou. te percé woo comme Tafa. waaw waaw loolu ci ci. am entourage bi am entourage bi. waaw non c'est xam nga parfois am na loo xam ne mbir yàlla la mais des fois am na loo xamante nii mhm. euh, yoonu yàlla sax du ci nekk quoi. Ah. parce que xam nga tey jii nii kii naaru mi bu ñu nekkee ñu tolloo man ak moom di bëree ndoo aussi. Mhm. mais ñu jël naaru dugal ko salle musculation utal ko boxeur utal ko nangam nangam nangam. xam nga musculation tout. yow mbër boobu kan la mbër boobu ñu dugal fële te yow jàppale wuñ la kal la kan la. mais mais xam nga man ak giri lañ waxoon ñoo fi nekk. actuellement nii yéen a doon xëccoo tigre bi. non xëccoo woon sax. parce que ah. giri maa ko daax a bëri. yaa daax a bëri giri. ah foofu sax bokkul quoi. giri maa a bëri. xam nga euh, bi ñuy bi ñuy dem noonu. Ah. Euh, giri après am na yu bëri yu mu yoo xam ne ñun amuñu ko. Mm-hmm. am na sax ay xam nga. grand yoo xamante ni ñi ngi woon face mhm. utal ko ay job yoo xamante ni job yi du liggéey day dem rek après xam nga seg nga dem jël salaire rek mhm. sans job sans def dara ñun nag ñooy taxale lépp ñooy mhm. paas ñëw jógee caaro yi ñëw aussi tamit dañ doon wax booy bi comme caaro yi la dëkk yëmbal nii su nekkee fii nii te bu demee nekk tëdd fil bi yàgg-yàgg da koy yóbbu fële maa après dama doon dégg rumeur yooyu mais côté jalousie yow Gris mu mu amul amoon na si écrit bi. non xanaa amoon na bët boo koy xoolee yow. non non man xoolee wu ko woon benn bët parce que xam nit bu la mënul. Hmm. doo ko xoolee daal mënul la. non si ci ci xam nga du ñu ay adversaire ma ak moom. dañu déggante tey bi muy bëree euh, Modou bu paasee sax après déggante nañ ma ak moom. Mm-hmm. mais du du ay jalousie ak yooyu quoi mais cest diir nit nag euh, dëgg moom moom la yàlla bëgg quoi. non ay élèves ngeen woon. ay élèves lañ woon ñu gën ko motiver gën ko jàppale. yow jàppale wuñu day am jalousie loolu laa la bëgg a wax. pourtant jalousie wu si nag parce que man xam naa ni donte jàppale bi mu am noonu. Mm-hmm. moom bu amee combat su nekkul entraînement sax du sawar. de savoir. oui parce que bi muy bëreeg Baye yoon ñu ngi doon entraîné Liberté 6. côté mhm. camp camp Asfa bi. waaw ci camp Asfa bi noonu. am jour yoo xamante nii man maa ko dee exprès sax ñëwuma. Mhm. parce que xam nga ci la waxee ka Père Moussa ne leen euh, Babacar il faut muy ñëw entraînement parce que moom mën a sonal. si mhm. la ma paay woowee ma ne leen non temps yi dëkk bi moo demee nii ak nii paas yi nii mais combat boobu pour nga xam rek dañ ma doon jox euh, chaque jour su may ñibbi dañ may jox paas cinq Hmm. mais après bi loolu jeexee daa arrêté comprendre nga. waaw mais si laa dem ba xam ni genre <laughs> préparation. combat lañ genre kii lañ may def quoi. li nga doon utiliser sa force. waaw ak sa xam-xam. way et euh, xam nga don bi mënul passé bokar man soo amee naaru. Mhm. man pied droite laay teg. di bëree li naaru li naaru di bëree dama koy bëree. boo amee bokar mhm. bu dee gauche ak côté bu muy aw buy bëree foofu laay aw. man donc kii sens boobu laa amoon quoi. Hmm. c'est-à-dire da woon si bii boor. waaw mbër boo am nu muy bëree mun naa bëree noonu. mun naa polyvalent woon daal. waaw mun naa bëree ak yow ak yow noonu. Hmm. xam nga ba mooy loolu ba si dafa Gueye aussi combat yu si bëri ñoo ko préparé. beeg Tyson boo muy bëreeg Tyson. bi muy bëreeg Tyson Balla Gaye 2 ay hmm. Lac de Guiers ay Khadim Ndiaye yooyu yëpp ñoo ko préparé ñoo ko ñoo nekkoon këram di ko waajal. kon yow yaa nekkoon Fass xale Fass. ki ñu gënoon bëgg Fass. waaw bëri na pas yoo xam ba léegi sax des fois ma kii ñu ñu booy ñun mënuñu comprendre quoi parce que xam nga instant boobu daal xam nga man mi aussi amoon naa ci confiance torop nag. pour hmm. pour topp si ginnaaw Tafa. Hmm. pour après Tafa. di sa di kii te percé loolu qu'est-ce que ça te fait xam naa ne yaa ngi koy xool. <laughs> non non dama dama dama koy xool ci sama bopp rek. ndeysaan li muy expliqué nii dafay mel ne ni bopp laa koy xoolee. Hmm. mooy li may wax rek làmb dafa métti. làmb daa metti làmb jàppale la làmb ku ci amul jàppale bu bu bi nga war a am pour nga nekk champion day day day day metti parce que xam nga surtout ñun ñi nga xamante ni ci bande bi lañ dëkk nii xam nga demee noonu nekk sa famille nekk ak xam nga parfois loolu mooy tax ngay jël sax yenn avance du du ay du ay kii kuñ ko jox mu bëri wala affaire yooyu non non mais yenn avance yi boo ko jëlee sax non fàttu turu mooy tax nga nga nga nga nga jël ko quoi xama mais comme li mu expliqué nii dafa dafa dafa dafa loolu moo nekk quoi. moo nekk fépp moo nekk ci hmm. champion yu bëree baree baree bëri loolu moo leen tënk.